dama la je dëgg yàlla dëgg yàlla non la bàyyi la. ngir yàlla ak je laisse tomber et en même temps tu as la parole parce que tu as été interpellé sànq et tu yaa ngi bëggoon tontu élagement. <laughs> non non tontu ma tontu ma élagement. non je laisse tomber tontu ma élagement je laisse tomber. parce que moi je laisse euh, je pense que sax euh, ci ci réew mu ubbeeku dëggantaan man de kuma ma gis ci mbedd mi. Hmm. nga yor raaya nga nekk opposition pouvoir ak affaire naa taxaw waxtaan ak yow def ak jàmman seet ak yow comme ni may rombee jaaykatu truc bi moi jaaykatu. Ah, mais toi tu es libre voilà ah, non. doo moo tax ma moo a wax. bu dee moo tax ma bëgg a wax dans cette histoire dans cette histoire là. ci coow li c'est très difficile effectivement de ah, convoquer la neutralité. mais il y a une il y quelque chose boo xam ne déggoo ma ne la axulaay taala. buy metti wax ko bu naqaree wax ko dama ne tey jii nii coow li fi mu. toll soo ma ñaan na ma noppi ma noppi. waaw waxatuma. kon nekk ci loolu. mais ci loolu lay dem. da nga dégg ma pare naa ci loolu. man dama ci débat bi laay wax. ma ñàkk ma fay xam biir ma ci débat bi waaw ci débat bi laay wax non dama ne dama ne tey jii nii. tey jii nii non parce que euh, euh, Malick daf ma daf ma daf ma daf ma xoos ci benn affaire. waaw mais non mais ma bëgg a wax que ni ma bëgg a wax que ni wax naa sama wax dafa leer dama ne man sénégalais la. oui ah I want to know. Hmm. what. what happened. rape or not. what ah, happened. je le conjugue au passé. Hmm. nothing non waaw moom lay wax ni. mais nothing it's not up to you to tell me. mais déglu ma rek dama ne non dama ne tey jii nii tey jii nii non Malick dama ne gis nga droit bi ku nekk am ah di poser question bu la neex di am position bu la neex nañ ko may ñëpp dama ne man ah ñu dellu si Sénégal dama ne tey jii nii bu coow li amee ku mu munti woon nekk danaa bëgg a xam lu xew bëgg naa xam lu xew parce que tout simplement wax naa la ni Adji Sarr mi mënu ma ko jël sànni ko ci mbali. bi di xam ne non non non mais du PV du non waxuma PV dama ne Adji Sarr mi. malheureusement enquête gendarmerie bi donc baaxul. mais attends ma expliquer non dama ne la. du non mais mais gars yi leen boo di waxee ñu déglu leen. waa leen boo di wax ñu Birima mënu leen boo continuer parce que kii mënu leen El Hadj Malick yéen ñaar ñëpp leen waaye. moom moom moom ma respectez respectez respectez son temps de parole s'il vous plaît Birima e Hadj Malick respectez son temps de parole Pierre Pierre voilà et tu laisses Bouba parler s'il te plaît mooy wax allez dama ne tey jii nii merci ah ma mënuma jël xale bi sànni ko ci mbal il faut qu'on l'écoute dëgg ak du dëgg il faut qu'on l'écoute si amul benn candidat à l'élection présidentielle parce que kii dem di def candidat nekk candidat élection déjà c'est un acte boo xam ne personnel yow yaay dem déposer sa candidature sa parti nekk sa ginnaaw mais yow yaay yow la ñuy fal président donc moom laa ne bu coow jibee rek j'ai envie savoir gis nga am na benn prétention xam ne boo ko amee ah muy jiite yenn mbir yi la chose publique tous les détails bu am rek nit ñi lañuy jëm a xam parce que peut-être mën na leen gindi si sa sa personnalité parce que un programme ne ne suffit pas pour élire benn benn benn régime wala benn président moom laay lay wax ni li ngay porter moo bëri les ma toll na fii mais j'ai envie de savoir parce que wax naa ko au début je le répète ku ma yee 5 heures du matin encore une fois caméra baa ngi mën a ji ku ma yee 5 heures du matin ne ma Ousmane Sonko violé na qui que ce soit Miss Monde man la da ngay wax lu neex te daal sàng looloy mais ku ma woo ku ma yee sama aqulaay taala lay wax ci li ma seet te ñun ñëpp sénégale lañu ku ma yee 5 heures du matin ne ma à 22 heures Ousmane Sonko dem na def plus qu'un massage kese du ma la gëm non plus dëgg la yàlla bëgg que ce soit Ousmane Sonko keneen ak keneen ak keneen parce que tout simplement gis bi may xool bët bi may xool Ousmane te loolu ça m'engage man personnellement ça mangage personnellement que que loolu am moo tax man la j'ai envie de savoir parce que ça m'aide hein ça m'aide à avoir une idée de de de, de cette personne là qui prétend peut-être que un jour mu jiite Sénégal mm-hmm. j'en ai le droit mm-hmm. te loolu ku nekk dafa exi war a exiger droit bi maintenant les trucs de manipulation du bu état cest à que kenn mënul fexe te foofu laa xawul d'accord ak ma gis nga par rapport ak euh, acte yu bëri yu fi am ah les gens ont le droit de poser beaucoup de questions sur suñu justice si suñu justice wax naa leen fii ma ne leen conseil constitutionnel la seule fois dañu nekk en désaccord ak président de la république ci li ma fàttaliku mooy bis bi président Macky Sall ne cinq ans laa bëgg def ñu ne ko noonu sept ans nga bëgg def donc saa yu conseil constitutionnel bi nga xam ne moo validé confisqué au peuple conseil constitutionnel bi nga xam ne moo validé candidature Abdoulaye Wade waaw mais d'accord waaw bul ma bul ma dagg non donc ah, légitimement waaw am nañu droit waaw waaw d'accord bàyyi bàyyi sa xel dama la le peuple non nit ñi am nañu droit ah ñu poser wu des questions sur ni justice bi di doxee ak ni si assemblée nationale di doxee. Mhm. loolu kenn mënu ko dindil kenn. parce que bu ñu waxantee dëgg rek bëri na ay mbir yoo xam ne xew na assemblée nationale dañ fi doon toog di ko wax vaara ngi fi kenn du ci d'accord bëri na mais dans cette histoire là. moo seul problème mooy que xaw ma bu dee complot la ma xam ne dañ ci dugal benn élément boo xam ne dafay difficile ma sànni ko ci mbalit mooy que benn sénégalaise boo xam ne elle a le droit de porter plainte contre Bouba Ndour wala pour Papis que muy wax mu dëgg loolu rek mooy sama problème te loolu je ne peux pas sànni loolu parce que bu doon fàttali ne Ndour du ma ko sànni yaa ngi ma dëgg donc man foofu laa yem. allez Pape Djibril euh, man li ma bëgg a wax mooy li ma leneen li ma ci bëggoon yokk mooy. cette fois deux deux deux minutes ngeen am. leneen leneen li ma ci bëgg a yokk mooy souvent suñu réew yi bu dara xewee. c'est aussi des opportunités pour ñu interroger la marche de beaucoup de choses. Covid bi dafa ñëw frapper durement les entreprises sénégalaises les entreprises sénégalaises wàllu massage tamit ay entreprises la ay nit yoo xamante ni ñoom ñoo ko jàngi xam ko mën ko cette affaire la dafa nekk tamit di leen xañ lu baree baree bari te bàyyiwuñ leen xel. Mhm. fi mu ne nii mënuñu ñoo wax sax ñaata la peser ci seen contribution mënuñu ñoo wax ñaata nit lay dundal te effectivement man xam naa kilifa yu bari yoo xamante ni soit génn nañ ci feebar. soit def nañ choc soit def nañ loo xamante ni itteewoo nañ barab yooyu ngir dem di fa massé wu leneen li nga xamante ni waxoon naa ko keroog mooy par rapport ak salle massage bii nga xamante ni moom la ñu wax ñu wax par rapport ak euh, légalité ou pas ma ne leen dafa am pignon sur rue def enseigne la collectivité locale yi tamit foofu dañu leen interpeller ci barab yi nga xamante ni ñooy liggéeyee ci gox yi nga xamante ni foofu la ñu nekk parce que loolu boo koy def ci collectivité locale collectivité locale bi ngay tàggu mm-hmm. mais ñoom aussi am nañu benn itte boo xamante ni war nañ ko am pour xam ku nekk ci seen gox lan la fay def ak lan la fa deful les corps de contrôle yi nga xamante ni ñoom la ñu dénk inspection du travail ñoom aussi dafa am liggéey boo xamante ni war nañ ko def pour xool kan moo qualifié ak kan moo qualifié pour def tel travail wala tel travail moi quand on quand on parle de, du procureur de la République quand on parle de l'opportunité des poursuites c'est parce que y a une dimension pédagogique c'est parce que aussi nii ni ni nga xamante ni tey àdduna fi mu toll ñuy retransmettre des procès procès yu mag ñu koy retransmettre en direct mais foofu la ñu toll aussi ba l'Assemblée nationale doit retransmettre en direct yenn yoo xamante ni ñun fii réclamer nañ fi une télévision et une radio parlementaire parce que wax nañ ko léegi ils représentent le peuple mais ils sont pas le peuple en réalité donc ki nga xamante ni aussi moom moo la yoon yónni te adduna bi dafa dem foofu léegi au non de la transparence et de la bonne gouvernance ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk foofu ce serait bien qu'on aille vers pour que ñu am assemblée nationale boo xam gëm na dëppoo ak jamono mhm. ba nga xamante ni yii buñ ci jógee dinañ ci mën a jàng lu bari te dinañu permettre aussi fii ak dix ans que du ñu defaat bis répétita parce que on a l'impression que l'histoire ne bégaye même pas elle se répète finalement Papis Diaw tu ne penses pas que Sonko récuser na juge bi on ne devrait pas désigner beneen comme on dit c'est son droit et que bu ñu désigner beneen nit qu'il est obligé là aussi d'aller répondre non je ne pense pas que mu récuser tous les tous les juges bon ki ñu ko désigné récusé na ko on a qu'à choisir beneen par souci de transparence nañ choisir beneen comme c'est si si mën nañ choisir beneen. non si la naa le droit oui c'est obligatoire. que la loi dit que boo boo nee kilo non damay laaj mais Birima ñun fi mu nekk nii ay sénégalais la comme la ñu wax solu solution la ñuy ut waaw moo tax moo tax solution ma neexal ko suba ko juste ma ne neexoo ma permet non il faut l'argumenter et documenter et nos avocats l'ont bien fait avec des cas avec des cas précis on reviendra on reviendra dessus tànn ki lay accusé c'est pas obligatoire que ñu changé ko allez Papis principe principe bu arbitrage déglu leen Papis arbitrage mooy équité c'est que il faut que mu am équidistance si l'une des parties considère que kay les conditions ou critères yi pour nekk dans l'impartialité si le droit le confirme pour aller ñu avancer mais nañu respecter ses droits tout ce qu'il a comme droit nañu ko les règles établies c'est ça le problème maintenant li ma bëggoon glisser tuuti rek mhm. mooy il faut que sénégalais yi comprendre ñun waa parti Sénégal je vais insister pourquoi affaire bi am ampleur mhm. au-delà des politiques qui ont des colorations qui ont il enjeu politique à côté mhm. ça comprend mais c'est tout simplement parce que la personne incriminée aujourd'hui qui est en accusation dafa bëgg nekk Euh, président euh, Sénégal jiite réew mi. c'est ça qui fait la la particularité. Mhm. mais tous les jours demain boo xëyee le premier jour ak ngay lire tu verras des viols. Mhm. le tribunal travaille tous les jours et condamne des gens qui sont euh, victimes wala en fait qui ont été auteurs de de donc moo tax ma ne il faut que les gens s'organisent mhm. pour que et intérêt bi am bi ñuy am un peu li tax ma koy wax parce que même boo buggee askir à président de la République parce que président c'est le plafond Mais il y a certaines fonctions dans ce pays, ailleurs, mais il faut enquête de moralité. Parce qu'au-delà des compétences et des aptitudes, il y a des mœurs ou un comportement boo xamante ni moom mooy accolé ak responsabilité bi. donc pour l'intérêt même de de de de Sonko et de Pastef ñoom par rapport à leur ambition. man je leur nañ ko leeral ça va dynamiser leur leur leur leur leur leur leur projet. Mmh. mais bu amee ay lënt-lënt yoo xamante ne leerul ça va poser problème donc encore une fois. l'affaire a un caractère particulier parce que ki ko ki si nekk la moom moo am dayoo boobu waaw mais ça n'enlève en rien l'obligation peut-être d'aller dans le sens de la vérité et que chacun puisse tirer son parti. à la régie nee na ma dans trois quatre minutes on fait la publicité alors si tu peux en une minute. non demal demal allez honorable deux et une minute ñu ñu dem publicité. waaw mais euh, tënkal en deux minutes waaw dafa am lu am solo loo xam ne dama mhm. ko bëgg a leeral. waaw tënkal en deux minutes dañ ko fa wax jëm ci audition. Mhm. que waroon nañu mën a déglu. Mhm. ay témoins. ñun commission ad hoc. may leeral ne ñun. attewu leen munuñ attewu du ñu. assemblée nationale ma ñëw. alaaji Malick ma ñëw mu tontu ci lu ma waxul. Mm. dama ne waaw mais bàyyi ma leeral mënoon nañ ko xool waaw même boo ko waxul bàyyi ma leeral. ok voilà parce que ñun assemblée nationale. duñu tribunal loolu nga ma doon def sànq. assemblée nationale du ñu organe judiciaire dañoo am séparation des pouvoirs dañoo am le pouvoir judiciaire le pouvoir pouvoir législatif et le pouvoir exécutif théoriquement ñun ñooy légiférer donc ñun justice daf ñuy saisir rek pour lan suñu collègue moom la ñu tuumaal te pour ñu pour pour ñu mën a continuer que ñun ñu lever immunité parlementaire damay farli ne immunité parlementaire lever bi du un événement parce que nag muy Sénégal mu ci bitim réew ñëpp a koy def bu nekkee ne kat dañoo tuumaal député cinquième république française y avait 47 levées immunité parlementaire Mitterrand en 1959 dañu lever immunité parlementaire yàggul dara Marie Le Pen Collard muy 93 ak 94 yëpp pour fraude fiscale yàggul Euh, ki may bëgg a wax ni sax kooku journaliste la sax du député muy Patrick cest à ngeen ko. dañ ko tuumaal mais bi ñu ko tuumaal lu mu def dafa porter plante pour setal boppam parce que jàpp na la calomnie la kon foofu la ñuy xaar tamit ki nga xam ne dañu ko tuumaal. ngeen tamit wax leneen loo xam ne euh, muy presse bi jàpp nañu ne huis clos bu ñu ne huis mooy que ne tijji luñu suñuy travaux publics bi. te loolu li ko waral mooy contexte bi la ñëpp xam nañu ne assemblée nationale dañu jonkanteel ak Covid ñàkk suñu collègue ñàkk ci bakkanam ñu bëri nekkoon sous traitement ñu jàpp ne képp koo xam ne ba tey jii sax Covid baa ngi fa dajagu fa. Mhm. amaana xëy na histoire bi ñu nekk sax moo tax waxatuñ si mais ñu jàpp ne li nga xam ne tey mooy Covid bi mu tere presse mënu fa am accès. une personne étrangère également mënta am accès dans l'hémicycle loolu contexte bi ñu nekk moo ko waral. waaye li Pape Djibril wax dafa nekk projet bu nekk assemblée. muy télé parlementaire boobu. donc loolu muy projet boo xam ne sori nañ ci trop te yaakaar nañu ne léegi mu sotti mu wax nag si wàllum jigéen ñi ma ñëw dafa tudd léegi may mun a jéey. ne dañ koo teg loxo dañ koo teg loxo uh-huh. ak 17 personnes 17 jigéen te xam xamuñ lu tax. Hmm. yaakaar naa ne audio bi sànq ba tey mu ngi daw may mën a c'est ma muy ku xale koo xam ne euh, ku calme. Mhm. xëy na amaana lii moo tax mu génn. Mhm. mais la mu wax bañ teg ko loxo. Mhm. audio baa ngi circulé parce que daf ne dëkk bi dafay takk. te ñu nekk ci dëkk boo xam ne nag dëkk yoon la. ñu dëkk boo xam ne état la ñu jox suñu sécurité ah. de personnes et des bien kon jàpp naa ne ku wax lu mel noonu ci audio dëkk bi dina tàkk tey bu buñ la tegee loxo kat yaakaar naa ne kenn waru cee jaaxle ah, mm. donc yaakaar également tamit sama camarade sama honorable collègue honorable député Ousmane Sonko. pour terminer dañ ne mu ngi récuser le juge. mais moom moo xamal récuser le juge mais dafa ne procédure bi. jaagul yoon. te ñun procédure bi ñu def muy procédure boo xam ne bu normal assemblée nationale ba ñu dooree. bañ jotee lettre procureur beeg ministre de la justice. ba ba ñuy teg commission ad hoc. ba ba ñuy teg calendrier bi nga xam ne mooy wéyal suñu liggéey. ba ba ñuy yónnee Ousmane Sonko convocation. mu jot ko dix-sept dix-sept heures vingt la fa gendarme bi yegg mu xool kay de charge bi xam lan lañ koy doyee mu ne jëlal convocation bi ba ba ñu dem assemblée nationale di yóbbu def suñu rapport ñu commission ad hoc ba ba ñuy dem plénière ñu may ko koo xam ne tey mooy avocat wam jëlal na parole waxal ko ñëpp jàpp nañ ne plénière bi nga xam ne tey moo amoon amul débat tey la juróomi nit ñoo amoon droit wax muy le président de la commission ad hoc muy le rapporteur de la commission ad hoc muy benn député contre muy le gouvernement ak koo xam ne moo waroon défendre Ousmane Sonko kon dama jàpp nañu assemblée nationale liggéey bi ñu waroon liggéey dañ ko liggéey na mu gën a yendee kon suñu collègue daf ñu waroon jox cër ok jox ñu cër moo ñu wuy suñu commission ad parce que du suñu noonu sunu collègue la ñu bokk ñëwandoo assemblée nationale waaye nekk suñu collègue du taxit ñu favoriser l'impunité parce que dafa am tey ko wax assemblée ne Montesquieu daf ne woon mm-hmm. que ne injustice menace la pour tous waaye nag ni mu nekkee menace ah pour Ousmane Sonko la nekkee menace pour victime bi nga xam ne tamit présumé victime la muy Adji Sarr ah. kon nag li ñu war a jàpp ñëpp mooy que ñu ñëpp ñu war a servir la vérité ñun ñëpp ñu war a bàyyi yoon leer na li nga xam ne mooy liggéeyam merci beaucoup leer na également na li xew tey. lu diggante Ousmane songo ak la président Macky Sall. c' est entre honorable député Ousmane Sonko. et une masseuse. bu tudd Adji Sarr. ok loolu yëpp d' accord léegi militer maintenant pour la manifestation de la. la vérité ok mais ñun pour la vérité aussi. vos travaux mun ngeen ko def à huis mais les débats ngir yàlla vous aurez pu vous arranger. mu nekk direct ba ñun ci Mame Diarra Fam lañ ko doon seetaanee. acca la malgré contre contexte euh, Covid mais ngeen tegal ñu installation boo xam ne on suit en direct. vous auriez pu le faire vous auriez pu le faire allez non non non El Hadj Malick non non on est contexte Covid yëg fa xewoon ñi on est d' pour la pour la vérité. comme man xaw ma texte yi moom moo xam texte yi article 44 règlement intérieur lu mu wax xam nga loolu da ngeen di jaawale article 44 chapitre 10 la ñu wax ci commission permanente yi ak commission spéciale temporaire hmm. bokkut ak commission ad hoc démb dama déglu ma ñëw da ngaa jaawale article wax mu leer article bi li mu bind dafa leer daf ne l'assemblée nationale peut écouter toute personne utile loolu commission permanente la. waaye dama ne waaye déglu rek dama ne. boo boo duggee ci jubóo ndax moom nee na dama ne dama ne dama ne dama ne dama ne dama ne dans na mën na mën na mën na consulter. Mhm. mën na consulter toute mais en dehors de ça. Uh-huh. ñun dañ uh-huh. document bi ñu leen jox ñoom. Uh-huh. am na PV am na certificat médical. Mhm. da dañ ne document bi ñu leen jox. Mhm. am na PV yi. Mhm. am na certificat médical. Mhm. fële lañ ko teg xooluñu ko. c'est-à-dire que. c'est sûr que ko ce que je veux dire. considéré wuñu ko en tout cas wala boog ils disent enquête suñ ko con suñ ko su dee xool nañ ko mooy. enquête xool ngeen ko xoolu leen ko ma bàyyi ma bàyyi ko xoolee mooy ah, peut-être enquête bi nga ne section recherche def na ko donc enquête boobu noonu amul benn njëriñ peut-être c'est pas fiable xëy na loolu tax parce que PV yooyu la ñoo fa nekk. beneen bi beneen bu garaaw bi mu wax daf ne Maymuna dañ ko jàpp ak 17 yi. parce que parce que daf ne dëkk bi day tàkk. na wax li mu wax yëpp mais bu waxoon sax dëkk bi day tàkk Aliou Dembourou Sow lan la wax yéen da ngeen a xanaa dëkk bi dafa am ñaari justice. ak ñaari sénégalais ku ànd ak nguur ak ku àndul ak nguur. madame dama ma yaa ngi yàq dañ koy leeral xanaa dafa am de viol. waaw maa ngi ñëw xanaa dafa am. non non dañ jàpp ñëpp waaw man dama ne dama ne. ku nekk naa eh Aliou Dodo Sow j'ai pris ma parole. vraiment fàttali li ma waxoon. xanaa dafa am dëkk bi. n'oublie pas ce que j'avais dit ku ànd ak nguur est-ce que est-ce que remarqué ngeen benn affaire. n'oublie pas ce que j'avais dit. ñaata nit ñu ànd ci nguur le rapport IGE ak Cour des comptes épinglé ak OFNAC ñaata daan na ñiy war non tant que arrêté wu ñu damay continuer sama temps de parole bu ñu bëggee nag ma terminer dañuy noppi ñoom ñëpp ñaata nit ñaata nit bu ko ñaata nit la uh-huh. fii ah, rapport yi épinglé mm-hmm. parce que ñu ngi ci pouvoir am na ñoo xam ne bi ñu leen di épinglé nekkuñu woon sax ci pouvoir mais dañu dem ci pouvoir bi ñu bàyyi leen demal la bëgg wax ne justice bi ngeen bëgg ñu ñu wóolu ko. Mhm. ak ñii nga xam ne da ngeen bëgg ñu ñu wóolu leen. Mhm. su fekkoon ne daf dañu ñu won benn soupçon mhm. de d'équité et de légalité dans ce pays du doon problème. donc mënuñu wax ne dañoo arrêté euh, dañu arrêté euh, Maymuna mais actuellement cinquante 57 yi ñu arrêté mu duñ la tegal dara lu leer na la lii moo tax ñu arrêté leen. mais ñoom may mun a notifié wuñu leen moom moo wax ne loolu la ba léegi mu notifié wuñu leen la moo tax ñu arrêté leen ñu ngi garde à vue les 17 les 17 dames ñu ngi garde à vue te biñ ñëwee di leen jàpp defuñ dara résisté wuñu dafa dara dañoo tëdd ñu jàpp leen xëcc yóbbu ñu ñu xëcc yóbbu te te te loolu gouvernement ba ñëwee ba léegi dañuy jàpp di di jàpp di tëj hmm. dafa am nag benn affaire boo xam ne invoqué nañ ko te dama ciy hmm. wax mu leer hmm. ma nit da ngay honnête maa toog TFM faram fàcce fii. Mhm. ne man ci li ma gëm selon ni ma dégloo récit bi. Mhm. Mhm. ci complot bi la bokk. waaw je l'ai assumé. ndaw si génnaat def déclaration. encore une fois préciser beaucoup de choses da nga waroon wax ne damaa demaat 7TV devant a Ndour. ma ne ko bi ma ko dégluwaate mu wax xam naa ne man maa juum ma baalu ko c'est-à-dire que dafa bëgg. c'est nit booy wax. da ngay honnête donc leer na. da ngay honnête. de donc leer na. loolu dafa ma solo mais non mais dama interpellé nag. non non non s'il a bien compris que d'accord nee nga ni commission permanente la. mais pas ad hoc. mais a compris xam on a compris. xam ñuy naxante parce que dañuy wax ak sénégalais yi te damaa bëgg lépp leer. xam nga boobu ba tey ñun commission ad hoc waxuñu parce que dañu li ñu tënk mooy la confidentialité. moo taxoon mënoon nañu wax mais defuñ ko mais tey nag réserve boobu noonu da jóg na parce que plénière bi jeex na. lim fi junju moo tax booy wax da ngay wax loo xam. di wax lu la leer c'est passible du pénal hein, que dit l'article. wax. tout article boo xam ne. ah si y a un article qui dit. maa ngi ñëw non c'est pas. Charles naa ko aussi. Charles li muy wax nii. ça concerne les commissions spéciales temporaires. Mm-hmm. lu mel ni commission d'étude mission d'étude. Mm-hmm. wala mission d'information. mais ça ne concerne pas. la commission ad hoc. deuxièmement. Mhm. beneen bi muy wax. sont les commissions permanentes. ok nous avons quatorze commission à l' assemblée nationale. muy commission des finances des lois et cetera moo tax nag amalgame boobu laa bëgg ñu yëkkati. Mhm. ñun commission ad hoc. Oh, amuñu droit. Mhm. entendre benn témoin parce que nee naa duñu tribunal duñu juge PV yi jot nañu ko dañ ko consulter. suñu camarade honorable député Ousmane Sonko bu ñëwoon wuy ñu dañ koy déglu moom it ba paree nag suñu rapport mais rapport bi ñu def moom waxam newu ci mhm. parce que nag wan ñu ne ni ñu ko mos a waxee nous sommes de petits députés ok yàgg nañu wax loolu mais terewul tey bu ñëwoon toog non wala considéré comme un grand député parce que c'est un grand patriote mhm. muy koo xam ne du n'importe qui si Sénégal koo xam ne nekk na troisième à la présidentielle koo xam ne dugg na assemblée nationale <laughs> même si su dee plus petit xaw ma euh, non c'est pas dugg na dugg na allez c'est bon on non non pour dire simplement que ne uh-huh. wax di tey c'est simple. le débat lenn la rek mooy siif boo xam ne dañ ko jiñ suñu collègue. Mm-hmm. ñu bëgg mu leer. ñun député yi parce que ce n'est pas pour rien qu'on nous ok waxoon nga ko waxaat nga ñu ko on est parfaitement d'accord encore que c'est pas dans la constitution. bismillah deuxième partie. ça vient d'Angleterre.